solo waale mi ngi mën ko may wax nga dëgg xam nga ñoon loolu dama koy fàtte souvent mhm. ñu ñu contacter euh, mu ànd ak sama manager le gérant mhm. de la Sono et le euh, gérant Sono ne waale dafa war a génne album mais il faut ma contacter ko xool est-ce que de la Sono sera dispo bi mu contacter waale bi nga xam moom moom Sono waale na ko waaw dana am lu ci dis mënu kan moo ko soxla mënu ko nit dof waale na ko yii nit sama xarit la Sono doxul suñu diggante mhm. comprendre nga mu wax ko sama sama staff man ak moom ñu déggante si mu ne ñu non franchement mënu ma la ko loué jëlal sono bi noonu rek après yow lii da ciy manqué lii da ciy manqué lii da ciy manqué nga fay euh, euh, main d'œuvre gars yi nga dem wuti lumière parce que yoruñu lumière bi mais li ci des comme sono moom man du ma ay contrat yooyu dox sama diggante ak yow ma saluer ko pour loolu parce que ah. loolu affaire nit ku mm. baax la quoi il était pas obligé te amul woon contrat bu sono bi lakkoon moom mooy perte mm-hmm. mais comme def na gest bu rafet ci ku ñëw di loué yow nga xool que ni kii am ngeen ay relation te bëggoo trop Euh, doxalanteeg business boobu nga def ko après je les mais bon on est dans un milieu un peu compliqué yoo xam ne y a des gens uh-huh. parfois dañuy xaar sa faay uh-huh. donc ils ont interprété ça comme quoi que kii da ko dimbali kii da ko amal solo te c'est ça la réalité des choses man nag je ne suis pas quelqu'un buy remercier ci suuf loolu yëfu ragal la uh-huh. su ma nangoo bi nga ñëwee wax ma loolu ma nangu ko su ma la dee remercier ci kaw laa lay remercier donc quand je waaw dafa am question bu ma bu ma bëgg poser par rapport ak euh, ci euh, relation Nit Doff euh, ak artistes yi mu séqal game bi uh-huh. parce que gis nañ ne Nit dof rap bu engagé lay def uh-huh. maanaam hardcore lay def uh-huh. maanaam rap conscient lay def bi conscientiser askan wi par rapport ak li ñuy dund mais dañu gis tey jii façon rap bi xew léegi hmm? trap tey dafa am gangsta rap am hardcore am am trap am yeneen am yeneen rab comme euh, le temps de Rapadio bi muy ñëw daal di révolutionner rab bi mais aussi dañu gis façon rap bi am léegi xale bi neex na ma gel bi nii ñama ñii ñama ñaa non non doo comprendre quoi par rapport ak yéen mission bi ngeen daan jël di tàngal wax état bi yee eh, jaaral nii wax yaay ji doom nii nga war a mel est-ce yooyu amatul woon mm-hmm. mooy premier laaj bi lan nga gisee beneen bi bi ci topp mooy sa relation ak yeneen hip hip hopeurs yi. gis nañ sa coow ak Buzz Lab sa ak Canabasse. Euh, ngeen ngeen demoon ba mën ni xam nga mu mu mu dem ba concert boo leen mës a daje sax xeex dafay am. bon violence am fa quoi bëgg naa nga dëkk foofu. waaw sax le gangster du du milieu la non bëgg ay titres yu mag rek attribution yoo xam ne àggu fa. parce que ñu ne da nga demoon si benn émission rajo tas ko parce que tu considères que rappeurs yi fa nekkoon. am na li ñu doon wax. du du du ay valeurs yu ñu war a jàngale xale yi. waaw waaw yooyu yëpp am na si rap bi ñuy waxante rek ñun suñu biir. rap aussi am na sa côté un peu de la rue. Mm-hmm. boo ne quand tu n'es pas d'accord doo dem ci nit ki da nga ko koy wax en face. ça euh, comme li nga wax rek jamono aussi day dox. xam nga tey jii boo demee kër diine ji la fa woon diine. Mm-hmm. nga xam ne raxuñ ci dara seen tànk lañu tegoon ci sunna. Mm-hmm. di jàngale di bëggaloo nit ñi yanante bi ak seen diine di leen dawloo àdduna plus ñuy dem plus tey ji affaire bi euh, gars yi dañ ciy rax showbiz ëppalante taalibe ay mbir yu kenn xamul. Mm-hmm. foo dem si àdduna plus ñuy dem la doon pur day xaw a mm-hmm. wàññeeku. Mm-hmm. hip hop bi aussi muccul ci lool noonu quoi même si su fekkee toujours existé na. mais c' est vrai que ni on a tendance maintenant si yooyu noonu ko si euh, plus euh, daw engagement bi. xaw a ñeme un peu summi jigéen wala wax ci affaire ay ay ay affaire ay. ay ay wane yenn yi sa yoo xam si gaa yi dañu ko jombale woon seen bopp. mu ngi commencé di jël ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu mu dépassé ligne rouge bi. donte sax jege na ko lool. mais c' est vrai que ne aussi euh, engagement bi ñu daan gis si hip yi parce que hip-hop hip-hopeur hip-hop Galsen c' est des patriotes. seen askan mosu leen soxla ci benn combat. ñu ñu te loolu coûté na leen des sponsors coûté na leen ay faveur coûté na leen indil na leen ay boycott. indil leen ay façon problème bu nekk mais aussi. ñoom c'est des patriotes amul fu seen askan soxlaa benn combat boo xam ne doo ci dégg mhm. les rapport ci seen ay textes ci yi ñu war a dénoncer mais bu nekkee aussi sur le combat sur le terrain ils ont toujours été depuis 2000 euh, amoon jamonoy Ablaye Wade ab Abdou Diouf rôle bu mag lañ ci joué ba jamonoy Macky Sall Ablaye Wade mhm. rôle bu mag lañ ci joué et ils à le faire à travers Y'en a marre ak à travers structure yi ñu def di xool ay boy yi génn ci prison bi ñu ay métiers ibbil leen yeneen perspective ñu bañ a nekk ay délinquant rôle boobu hip hop daf ko yàgg a joué. maintenant jamono dem nañ ba xam ne léegi profit profit profit rek lañ nit ñi di gis ba ñu mujjee ñëw aussi dañuy xool lan moo mën a jural plus de xaalis lan moo mën a tax ba sponsor yi. duñu ma mere est-ce que ñu mujjee ñëw yi sax lan moo la jotale ak Dip parce que gis nañu en 2019 yéen ñaar nga <laughs> ngeen benn featuring muy. Jandaman remix bi affaire bi toj def mais Dip lan moo la jotale. non mais xam nga man. moo la euh, jotale euh, xam nga par rapport ak li wax Euh, bu ñu dee cent personnes franchement pour dire vrai je suis vraiment en phase avec les quatre-vingt-quinze voire plus. si mhm. je peux pas être ami avec tout le monde. man yàgg naa fi def naa li ma def sama milieu boo ñëwee dañu ma respecté parce que damaa am fu ma fekk mbir yi am lu ma sacrifié lu bëri am fu ma ko yóbbu ñu naan hip hop bi léegi day feesal stade yi léegi nekkatul ci boîte yu ndaw yi léegi stade yi day fees. Mhm. te noonu ñi ngi koy sante yàlla ñu ñoo ko fi def. Mhm. ci suñu génération. bari na euh, yaatal bu ñu yaatal génération bu mënta ñëw dañ lay invité nga ñëw di jouer ñuy demlante ak yow ñu lay jàppale ni ñu ko mënee par rapport ak yow muy doog a ñëw donc ba tax na euh, man fédérateur laa mos sa nekk ci hip hop bi loolu lañ ma xamee léegi nag dina am ku jóge fële euh, dunde ak yow noo xamante si nii du lii mooy li nga foog ni noonu la war a demee mais loolu yëg-yëgu boppam la su ñëwee daal ni diw duma ko respecté diw du ma ko bëgg. jiw su may wax ci moom damay xool nu ma ko yaaxatee mais kooku yëg-yëgu boppam la mais est-ce qu'il foofu la wax ji nekk mm-hmm. parce que man duma aussi garabu guy la quoi boo yoree sa oto mbott ñëw mbëkk ba moytuwulee waaye yàqule hmm. mais décision ni damay daw mbëkk ko man mënu ma si dara sa décision la. mais ci dab lañ nekk rek tamit ku nekk day sa morom. dama ko nangu barki yàlla te loolu dafa bokk ci liy neexal. bokk ci mouvement bi du moment que. affaire yi euh, mais événement yi mu doon retrouver. Mm-hmm. non j'ai apprécié euh, démarche moom yu mu def par rapport ak aussi euh, bi hip hop bi engagé woo dénoncé ay mbir lui aussi l'a fait comme les autres. Mhm. et en remerciant en en tout cas en encourageant les autres moom jéggiwuma ko. Mhm. parce que il a fait des efforts donc encouragé naa ko mais loolu ça n'a rien à voir. loolu c'est la relation ba léegi c'est tendu. non waaw on a déjà voilà mu ngi noonu daal. waxal seen relation c'est. yaa ngi non amul relation sax waxoo turam lu tax waxoo turam. non mais c' est pas mon ami aussi il faut xam nga man aussi j'aime pas faire jouer des des des. <laughs> ñu mën a ànd ñu ànd c' est pas parce que maa ngi télé rek. je vais mm-hmm. essayer de faire lu dul man. Mm-hmm. Mm-hmm. il a pas besoin de moi. j'ai pas besoin de lui on n' est pas des amis. on n' est pas près d' être des amis même suñu bëggee wax. mais vous n' êtes pas des ennemis. mais non on n' est pas des ennemis. non non non franchement on n' est pas des ennemis. Ah. mais am na lu mu dund jëm si man. loo xamante si ni fii ak moom noonu la ko bëgg a dundee. man parce que def naa la pas man nag maa ngi nit koo xamante si ni aw ma rëyu def la pas deux trois fois mais bu ma àggee ci samay limite rek damay xaw a yëg sama bopp quoi. Mhm. donc j'ai fait le pas deux trois fois en tant que grand frère waa booy da ngay ci nangam ak sàngam li tax léeg-li nga ne ma léeg-li ma doxaat beneen pas jëm si yow. wala que ne doo sama ennemi ma doxaat beneen pas jëm si yow su ma gisee que ni nag yow Mm-hmm. yaa ngi continuer am loo jàpp. boobaa nag xaw ma mën na ñàkkuma fayda quoi. Ah. xaaral xaaral loolu moo tax ngay tagg fan yi Ngaaka Blindé parce que xam nga ni Ngaaka Blindé ak Dip seen diggante neexul. non <laughs> mm-hmm. ma ko mm-hmm. a defee ak sama petit frère yëpp. il a pas senti le besoin de manquer de respect. il a toujours été respectueux avec man donc traitement boobu la am si moom noonu ma ko amee si Ngaaka laa ko amee si wan euh, lyrical Omzo Dollar Elzo Jam donc mhm. s'ils sont dix neuf yëpp ce sont des gars qui me respectent mhm. donc bu si amee kenn ku rebelle wu envers man ne kii nangam sangam laay dund moom c' est des choses yu mënul ñàkk la vie. Mhm. donc man noonu laa koy dundee mais je ne je ne je ne vais pas tricher quand euh, su ma nee kalashnikov sa xel si lan lay dem. mooy li gars yi doon wax mooy euh, première son clash bi bi ñu ñëwee wax ci son yi gars yi doon def. su fi xaatal maa ngi jégalu ci sama grand yooyu mais je suis obligé de le dire. ñoom euh, waaw yeneen son yoo xam ne ah, bëgguma wax sax tur yi parce que dama koy am kersa wax ci kanamu caméra. moo lay waral que ni ñun fii ni même suñu ko doon euh, euh, aborder dañ ko war a wutal worma dañ war a wodd. Mm-hmm. tey jii am na thème yoo xam ni même tur bi nii ruus naa ko wax nii ci kanamu caméra mm-hmm. man sama classe bi ko bi mu ñëwee ci kaw loolu la dal. Mm-hmm. mooy sàmmay mbayaan bi commencé woon am ci rab bi. mooy les les sons sexuels. Mm-hmm. yi ñu commencé woon def bu ma ñëwee du lii la ñu bëgg du lii la suñu rakk yi di xaar ci ñun du lii la société bi doon xaar ci ñun ñun rappeurs yi et je l'ai fait et gars yi comprendre nañ ko ça m'a ça m'a causé plus ko nekkul benn voile booy teg ci kawam ba tere mag ñi nga xamante nii jàpp naa ne war nañu déglu seen musique am tamit lu ñu si jëlee comme xale yi bu nekkee seen musique euh, pour ñëpp la xam nga il faut si mag ñi mm. c'est mag ñi ñoo war a adapté wu si si musique bi parce que musique bu jeune la aussi. comme ni ma ko waxee rek am na sa dose. d' insolence aussi il faut qu'on se le dise. Mm. ay jeune la parfois yam na yoo xam ne dañ koy wax mais euh, on se comprend toujours codé c' am toujours langage boo xam ne du heurté suñu mag ñi mais ñun suñu biir boo ñëwee di nga tu vas sentir benn certaine agressivité. wala voilà, insolence parfois ci suñu façon de de de faire musique boobu moo tëddee noonu mais comme ni ma ko waxee toujours on essaye aussi de euh, woddu kalaama bi d'une manière boo xam ni mag ñi en tout def naa carrière pratiquement ba def six projet su fekkee rëccal naa ay mots yu ma xam ne ëllëg dañ koy teg ci kanam mag ñi mooy rus aussi bariwul. Mm-hmm. j'ai dama mujj yàgg jaayante ak affaire boobu noonu après Kalashnikov métaphore la comme je l'ai dit ñun micro mooy suñu gon kaddu yi mooy suñu bal donc c'est juste benn métaphore boo xamante si ni on l'a pour dire que ni au lieu d'être violent au lieu de faire la guerre dans la rue suñu ay idée yëpp dañ ko dañ ko jaarale ci ci micro bi mu nekk notre armo et notre façon de de mener notre combat quoi. mais wàcc mu ngi koy wax sànq mooy lu jëm ci parce que man je me rappelle mës naa ci def benn reportage j'avais eu les di et tout ak euh, waa Akhlou Brick mais souvent mag ñi wala beneen public bi li ñuy reprocher mooy genre comme yow rab bu dëgër bi sa flow day xaw a dëgër. Mm-hmm. est que tey jii nii mënuñu xaar. Euh, non man fii nag damay bu fekkee ne say clip day wane lu baax même. bu fekkee ne it euh, engagement ngay wane mais euh, moo nga xaw a def tuuti sol genre nga xam ne nii beneen waaw kay nga xaw a <laughs> nga xam ne nii dina am ñenn ñoo xam ne nii dinañ ko mën di déglu waale du doon rek euh, kii bi waaw ah, non mais dama koy defar ah. c'est vrai que ni man aussi je suis quelqu'un de de d'un peu pudique par ak yenn yi mm-hmm. peut-être mooy du thème yi may gën a aborde quoi comme affaire inde yooyu noonu. <laughs> mais même si fekkee dans la vraie vie je romantique je suis quelqu'un boo xam je suis sensible à mm-hmm. mais xëy na euh, li jël le dessus en tout cas quand je suis nit dof réellement li jël le dessus mooy ce côté et j'adore ça mooy sa côté euh, une musique vraiment. am na son yoo xam ni mbëggeel am na solo lool mais aussi nga wax def ay son yoo xam ni jeune bi da koy déglu man tey si am na samay son yoo xam ni ba léegi nii dix ans après su ma ko tegee. ay nit dañuy ñëw ne ma son bi moo ma def kii dama ko daan tëj teg tëju di jooy kii moo ma dolli jom. lii moo tax son bi moo tax man ma jubóog samay waajur son bi ci laa jaare di ko déglu ba tekki su ma naan xëy di liggéey bi laa daan xam nga son yooyu noonu aussi eh, xëy na eh, nekkul li ma mettre en avant par rapport ak comme li nga ko wax soowu accord yi ñuy defee tout mais je pense que aussi suñu biir répertoire boo ñëwee mm-hmm. di nga fa fekk son yoo xam ne mag mën na ko déglu euh,